fukk ak ñaar yàlla enok salaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci ñaari njàng yi weesu jàngandoo nanu ci mbirum ñaari doomi aadama ak awa yu jëkk ya kayin ak abel gis nanu ni ñu jébbale woon yàlla ay sarax ngir màggal ko abel gëmoon na yàlla ba indil ko deretu mbote waaye kayin moom di fexe jege yàlla ci pexey boppam yàlla nangu na saraxu abel wante nanguwul saraxu kayin yàlla layoo woon na ak kayin ngir mu réccu wante kayin deful ludul mer ba mujj rey abel rakkam tey nag fas nanu yéene wey ci tawret dinanu gëstu ci saar ñent ak juróom ci téereb njalben ga kàddug yàlla wax nanu ne aadama ak awa amoon nañu yeneen doom yu góor ak yu jigéen waaye ci doomi aadama yooyule ñaari askan yi rekk lanu ci yàlla xamal seenub nettali maanaam askanu kayin ak askanu set kenn ci rakki kayin askanu kayin nag lanuy jëkk xool kayin takkoon na jabar ju mu tànne woon ci biir ay mbokkam jur ci doom ante ndegam janax du jur lu dul luy gas doomi kayin itam donn nañu seen xalaatinu baay ak waxinam ak jëfinam ni seen baay fonk ñu woon li yàlla wax bare woon nañu xam-xam te xarala waaye xamuñu woon yàlla yëf yi ci suuf dong lañu faale woon ñu tabax ab dëkk defar ay jumtukaay ay liit xalam ak yu ni ku soqi ko ci askanu kayin tudd tubal kayin ku xereñ la woon ci tëgg xànjar ak weñ waaye liggéey lu rafet taxul sa rafet benn sëtu kayin bu tuddu lamek moo doon juróom ñaareelu maam gannaaw aadama lamek awoon na ci tànki kayin maamam ba yées ko sax lamek mooy ki jëkkoon jël ñaari jabar te kayin reykat la woon mbind mi nee lamek boomoon na ñaari nit daldi bàkku ci li mu gën a soxor kayin ni kayin ak askanam wépp lamek falewul woon kàddug yàlla aji sax ji ku siis la woon te fonk xaalis di ku rëy te yëg boppam bànne xama ko gënaloon yàlla seytaane doon kilifam wante xamu ko noonu la lamek meloon ndaxte tànnoon na topp yoonu kayin nanu denc turu lamek ci sunuy xel ndaxte dinanu dellusi ci moom bala nuy àggale sunuy njàng tey yàlla baax na mbind mi yamul ci nettali kayin ak askanam wu jubadi noonu mbind mu sell mi nee na yàlla mayoon na aadama ak awa jeneen doom ngir mu wuutu abel ndaxte kayin rey na ko set la tuddoon set dafay tekki ki ñu tànn yàlla tànn seet mu wuutu abel lu tax set waroon a wuutu abel tontu laa ngi ci toolu àjjana la yàlla dige woon ki naroon a gane àddina ngir noot seytaane te musal doomi aadama yi ci dooleem musalkat boobu waroon na jaar ci askanu abel mi gëmoon yàlla wante seytaane jiite kayin mu rey abel seytaane dafa bëggoon a fanq pexe yàlla ci lu jëm ci musalkat bi mu nara yónni ci àddina wante yàlla sut am xel seytaane yàlla amoon na yéene ju rafet ngir goreel doomi aadama ci seen bàkkaar te kenn mënu ko fanq du seytaane sax naka noonu yàlla ci mbooti pexeem mayoon na aadama ak awa set ngir mu wuutu abel mi kayin rayoon naka noonu pexe mi yàlla rabatoon ci lu jëm ci ràmmukat baa ngi doon jëm kanam set nag gëmoon na yàlla ni abel magam set jaaroon na ci yoonu mucc wi yàlla rabatoon set ni doomu aadama yépp juddu woon na ci biir bàkkaar wante gëmoon na li yàlla dige woon ci lu jëm ci musalkat bi naroon a ñëw te firndeel na ngëmam googu ci li mu indil yàlla deretu mbote ni sarax suy muur bàkkaar yi leneen lu neex lool ci lu jëm ci set mooy yaroon na ay doomam ci xam-xamu kàddug yàlla moo tax mbind mi ne set juróon na ay doom te naka noonu nit ñi tàmbalewaat nañu tudd turu borom bi kon nag gis nanu ñaari askan yi soqiko ci aadama di askanu kayin ak askanu seet ndax xam ngeen lu ñaari askan yooyu di misaal dañuy misaal ñaari xeeti nit ñi nekk ci àddina li ko dale ci jamonoy aadama ba ci sunu jamonoy tey ji ci bëti yàlla ñaari xeeti nit rekk moo am ci kaw suuf gisul wuute ci diggante ñi am der bu ñuul ak ñi am der bu weex ci diggante wolof ak séeréer mbaa ci diggante góor ak jigéen yàlla du gënale wante day xàjjale waa àddina ci ñaari xeet ñan ñooy ñaari xeeti nit ñooñu ñooy ñi gëm kàddug yàlla ak ñi ko gëmul ñi xam yàlla ak ñi ko xamul ñiy dox ci leer gi ak ñiy dox ci lëndëm gi ñi jot seen baalug bàkkaar ak ñi ko jotul képp ku gëm yàlla ba jaar ci yoonu njub wi mu tëral dinga muc ni ki set ak njabootam ku jaarul ci yoonu njub woowu dinga sànku ni kayin ak njabootam mbind mi neena nag aadama dundoon na ba am juróom ñeenti téeméeri at ak fanweer sooga dee ci jamono yu jëkk ya nit ñi daan nañu dund ba màggat lool wante dee nañu ni képp kuy nit wara deewe adama ak awa dee nañu ni ko yàlla waxe woon bi yàlla sàkke nit dogalul woon nit dee wante muy dund lu tax nag adama ak awa dee ndaxte dañoo jàdd yoonu yàlla te peyug bàkkaar mooy dee léegi nag ci jot gi nu dese tey dinanu seet nettalib jenn waayu yàlla ju bokkoon ci askanu set mi gëm yàlla kooku moo di enok yonent yàlla enok am na it ñu koy tudde idrisa ci juróomeelu saaru téereb njalben ga lanuy gis cosaanu enok mbind mi nee na aadama moo jur set set jur enos enos jur kaynaan kaynaan jur maleleel maleleel jur yered yered jur enok enok moo doom juróom ñaareelu maam gannaaw aadama ci askanu set ni nit ñépp enok bàkkaarkat judduwaale la woon wante bi mu amee juróom benn fukki at ak juróom enok tuub ay bàkkaaram ba waññeeku ci yàlla te gëm li yàlla dige ci lu jëm ci musalkat bi waroon a ñëw ci àddina ngir dee ni sarax suy dindi bàkkaar te enok firndeel na ngëmam ci li mu jebal yàlla deretu mala ni sarax suy muur bàkkaar noonu yàlla jàppe ngëmu enok mi njub baal ko ay bàkkaaram may ko xol bu sel kon mbind mi nee na naka noonu enok àndoon na ak yàlla ci diirub ñetti téeméeri at wante ànd ak yàlla ca jamonoy enok yombul woon ndaxte jamono ju yàqu te rëb la woon ni sunu jamonoy tey ji li ëpp ci ñi tolloo woon ak enok jamono seen bànneex rekk lañu doon wut tey dund ci sobe moom xamoon na ne yàlla sàkkul woon nit ngir muy dund ci sobe waaye ci sellaay kon nag enok nanguwul woon xemem jiital ko ni ay dëkkandoom yi xamul yàlla ni yàlla moom ci boppam enok soppoon na njub te bañ lu bon nit ñi saaga nañu ko di ko fitnaal ndax dundinam wu jub wante enok faalewul woon toroxte ndax xamoon na ne dara gënula am jàmm ju wóor ak yàlla yàlla tànnoon na enok mu nekk surgaam ak yonentam ci biir jamono ju bon jooju ni yonent yépp am na lu enok seede woon ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw ci àddina yëgle na ne ramukat boobu dina dellusi ci mujjug jamono ngir àtte ñépp ñi rëccuwul te bañ ko gëm déglu leen ni enok woon mu ne borom bi wàcce na ca asamaan ànd ak ay junni junniy malaakaam ngir àtte ñépp te mbugal ñi weddi ñépp ndax ñaawteef yi ñu jëf ci ñeme yàlla di leen fàttali it kàddu yu ñaaw yi ñu ko tifaar ci seeni bàkkaar ak seen weddi des na leneen lu doy waar lu nu war a xam ci lu jëm ci yonent yàlla enok mooy lii enok dewul waaw kàddug yàlla nee na enok dewul nee na enok àndoon na ak yàlla ci diirub ñetti téeméeri at te am bés kenn gisatu ko ndaxte yàlla yóbbu na ko ci kaw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 bëgg ko te déggal ko ci biir jamono joo xam ne lu ëpp ci nit ñi faalewuñu kàddug yàlla naka noonu amoon na bés yàlla ne ko enok yéegal fii toog ci sama jataay te ca saasa enok nekk ca kaw ca ndamu këru yàlla ba faw ci loolu nag am na lu nu yàlla bëgg xamal mooy ku amul ngëm niki enok doo mën a neex yàlla mukk wante ku am ngëm gu mel ni gu enok yàlla dina bég ci yow te dootuloo wara ragal dee mën nga xam ne yàlla nootal na la dee ndaxte képp ku dégg kàddug yàlla te gëm ko bu sa dund fii ci kaw suuf jeexee dinga dëkk ci jataayu borom bi sa yàlla ba faaw ni enok wante faaw nga gëm li yàlla wax ci yoonu mucc wi mu sàkkal bàkkaarkat yi bul fàtte ku amul ngëm doo mën a neex yàlla ngir tënk sunu waxtaanu tey danu bëgg méngale ñaari sëti aadama yi nu gis tey maanaam lamek ak enok ñoom ñaar juróom ñaareelu maam lañu woon gannaaw adama lamek mu ngi soqi ci askanu kayin te enok soqi ko ci askanu set lamek ak enok ñoo bokkoon jamono wante bokkuñu woon itte seeni dundin wuute woon nañu lool ni guddi wuuteeg bëccëg nanu leen mengale tuuti lamek gëmul woon kàddug yàlla waaye enok gëmoon na ko lamek àndoon na ak seytaane ci sobe waaye enok àndoon na ak yàlla ci sellaay lamek faalewul woon yoonu mucc bi yàlla tëral ni enok mi ko fonkoon ba indil yàlla deretu mbote ngir bàkkaaram lamek xaalis la fonkoon jigéen lekk solu ak bànneexu waaye enok dund gu sell gi dëppook coobare yàlla la fonkon lamek deewoon na ci bàkkaaram daldi tàbbi safara wante yàlla yóbbu na enok fa moom ca kaw te mosul woon dee sax léegi laaj bu am maanaa ngi nii kan nga gëna niru yow wala enok ndax sa dund ëmb na nga mu ci wan xeet nga bokk xeetu lamek wala xeetu enok ci wan askan nga bokk askanu kayin wala askanu set kadug yàlla nee na xool leen seen bopp bu baax ba xam ndax ngëm a ngi ci yéen ndaxte ku amul ngëm doo mën a neex yàlla kon nag mbokki déglukat yi fii lañu war a yem tey nu ngi leen di fàttali ne njàng yi nuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am mën nga noo bind te dinañu la wax ni ngay def ba am leen sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis jërëjëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje neex na yàlla ayu bés gi ñëw ngir tàmbale gëstoo ndoog yéen ci lu jëm ci benn ci yonent yàlla yi ci yàlla nooyin yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci mbind mi naan ku amul ngëm doo mën a neex yàlla ndaxte ku bëgg a jege yàlla war ngaa gëm ne yàlla am na te dina neexal ñi koy wut